Euh, ginnaaw ci procès Adji Sarr bi bu ñu leen renvoyé chambre criminelle ay avocam def nañu ab recours recours boobu nag chambre d'accusation dàq na ko ñu dem cour suprême et tout yooyu noo ko jàngatee. waaw ah, ni ma ko jàngatee rek mooy loo xam ne lu ma bettul woon na. man naka jekk ba daan wax ne procès lay am. Mhm. lenn sax ci patriote dañ maa wax ne ma loolu bu ko wax parce que procès mënul am ndax dossier bi dara nekku ci. ma ne leen gis nga ñoom suñu loi ni mhm. nga. dañ jàpp defoo dañ baax mhm. maanaam ñoom dañuy toog bëgg laa jàpp jàpp la bëgg laa ba bala bëgg laa tëj tëj la bëgg laa bëgg laa ibbi ibbi la mhm. loi noonu rek lay demee mhm. waaye du affaire dañuy dem ci loi yi di xool loi yoo xam ne appliqué ko c'est-à-dire benn projet politique la boo xam ne Ousmane Sonko politicien yi la amal problème politicien yi daal jël mbir mi di koy transmettre la justice nag dañuy xaax ak moom kaay leen sot lañ loolu donc la moo tax ndax nit ñi xaaratuñ justice mu àtte ñu ne ah ndeka sa def xaaratuñ xaaratuñ foofu de mm-hmm. xam nga fa ñuy xaar mm-hmm. justice àtte ñu ne justice li leen ci bàyyi mm-hmm. ndax bu fekkoon na ñoom siis lañuy déglu keroog ba ko siis bu woowee moom Ousmane Sonko ñu war ko mën a bàyyi mbuy ji siis bu mooy Samba Sall yàlla na ko yàlla yërëm taxaar ko aljanna waaye lan moo tax ñu ne ko Samba Sall da ko nit ñi ne ko sa guy ji moom duñ ko mën a rek Samba Sall daal nañ ma ko defal su mandat de dépôt dégg naa sax wax ne maanaam ba ci euh, sous contrôle judiciaire sax moom sañëwu ko nanga ma see daam et cetera waaw wax seen wax waaye lépp rek yàlla na ko yàlla waaye pour nga xam ne Sénégal ñoom siis yi nit ki def na dañ koy atte xaaratul nit ki day deful dañ koy atte ci ñi atte ci ñoom nit ñu wóoluwut chaque jour bu ñu attee ci réaction nit ñi nga xam ne lii nit ñu doyu leen te procès Ousmane Sonko bi nit nit di wax wala muy jéem wala muy fexe ba atte mbir mi ci yoon woo xam ne nit ñ danañ ko ko sa waay dem tëddi ko sa wala mu ba ñàkk élection yii kuy boromam xel yow de daa mel ni bokkoo ci ñu naan bu mu dem ci procès wa kan man man man man bu mu dem kay laa wax bu mu dem lu mu fay wuti procès amut procès ñoo ko bind wax ko waaye amut xëy amut xam nga li procès mooy nit ki ah, atte atte waa atte deful ba ko atte xam nga lu am ku ñuy jaay doole ci kanamu yoon la war a leere lan mooy yoon xam nga luy yoon mhm. yoon mooy gis nga anglais yi c'est-à-dire daanaka amuñu daanaka ñoom amuñu ay ay constitution yi daanaka amuñu ay ay ay constitution yi amuñu yooyu daanaka amuñu yooyu. Mhm. ñoom nee nañ lu noonu ku ne xam na ko. Mhm. luy noonu itam ku ne xam na ko c'est-à-dire ñun ñii noonu la fa demee. Mhm. ñun luy noonu xam nañ ko de lu dul xam nañ ko. c'est-à-dire dañoo bëgg a jël noonu yi. dindi ko muy du noonu yi. jël du noonu dindi ko muy noonu yi. c'est-à-dire mooy liy luwaa tey dëgg te yoon mooy Ousmane Sonko deful la dul luwaa te du dëgg du yoon mooy moo def ñu bëgg ñu indi nañu moo def moo def ñu jël lañ dul nangu loolu lañ dul nangu suñ cerveau yi nii amul ku ci mën a dugg dindi ci li ci yàlla dogal muy am xel da day teg ci yow ni ko bëggee ñun ñu bi seen loolu bu nga xam bu njëkk daan am bu njëkk daa nga jël nit ko ba def ci sa maanaam xelam muy xalaatee li nga bëgg waaye léegi nit ñi dañoo dépassé yooyu mu koy wax léegi ci commencement ku nañ ko sant yàlla nag ku dul yàlla defaluñu ko Sénégal de mosul am ba mu dee Sénégal ba léegi attekat woo pour ñu atte la nga ne doo dem nga doo dem ah. waaw waaw waaye xam nga waxtu ne rek mhm. dana am loo xam ne mësul woon a am su amee ba pare ëllëg bu leneen amaatee lu ko ñor ñu ne lii amoon na fi xam nga la mhm. xam nga am na tey mhm. bii nag bu ëllëgee yeneen yi am ci suñu kanam bu soobee yàlla ak yi ñuy fekk ak yi ñu dul fekk su ne amoon na fi rek mhm. waaye tey moom mësul am li tax mës sa am nag mooy liñ fi gis candidat bu deful dara ñu ne ñu bëgg koo xam ne ay candidat ngir Macky Sall bëgg du dem ay siis bëgg ko cee jàppale loolu la seen loolu it mës am di wala kon ci Karim Wade ak Khalifa Sall lañ ko gisee minimum ah? bi ñuy wax sax nit ñi xam nañ leen a convaincre ci benn côté. mooy ñoo def ku mel ne man ci laa bokkoon. man gëmoon naa ne Karim Wade ku ko yëngal rek xaalis waat. waaye problème bi ma am ak ñoom mooy ñu def ci alal ju dul jeex te mënuñoo génn vingt cinq franc ci moom. te gëmul nañu yor na alal bañ gëm ko ñu bëgg ñoo gëmal nañu dafa am xaalis xum denc mën naa denc xaalis ba doo gisub xaalis loolu loolu kenn mënuñu ko gëm la ban gëm ko. loolu kenn mënuñu ko gëm la ban gëm ko. kon li mën a nekk rek muy li mën a nekk rek mooy moom ci jëmmam. Mm-hmm. mënuñoo fexe wax wala ñu jéem lijjanti ba Ousmane Sonko dem ci ay présidentielle waaw mais euh, vraiment yéen tamit euh, ngeen nekk di xataraayu waa Pastef surtout. yéen a ci terrain politique bi occupé ngeen terrain politique bi yéen a ci plateau télévision mais en face aussi am na benn yëngu-yëngu bu fa am en face. mooy waa Benno Bokk Yaakaar hmm. ñoom. ñi ci bëri en tout cas même bu dee le président waxagul jàpp nañ ne le président Macky Sall war na présenté wu en deux mille vingt quatre te ñu ngi préparé wu en interne bu baax a baax gis nañ aussi nu ñu accueillir dernièrement président de la République ca Thiès kon am na benn mbooloo bi nga xam ne nii ba léegi mu ngi koy drainer donc li ci seen kanam. ñi ngeen war a jàkkaar loolu tamit euh, tiitaluñ leen déedéet ñooñu lañ bi kenn ñooñu tiitaluñ kenn moom loolu seen wërsëg jeex na lekk nañ ko jaax ñoom hmm. seen wërsëg mooy nit ñu watal leen ci ay urne ñu wéy di falo di jënd ay président wala ay njiiti réew pour seen wërsëg da cee jeex hmm. moo tax seen yooyu ñuy def noonu amul problème gis nga la ñuy def dajale mbooloo buñ ma jox xaalis ma dajale mbooloo hmm. xaalis ak yomb xaalis wala daanoon lu mu wuti fekk ku fa lu mu wuti indi loo gis nga bataay ci réseaux sociaux yi nit ñoo xam dem nañ buñ dikkee daal dina daal dañ la ñu jox xaalis ñu léegi lan moo tax nag bu ñu def seen discours nit ñi duñu xaar bañ pare mhm. te léegi yow Macky moo yor xaalis mhm. moo yor armée moo yor président moo yor kàddu ñu wax ne moo yor prérogative moo yor décret moo yor lépp mhm. yaa ngi dégg mel na moom ci Sénégal moo fi bëgg lu mu ñëmewut a wax man man ma bëggoon doon candidat sax wax ko te moom ba tey ñëmewu ko li ñuy def kepp tax ñëmewu ko wan ko ne lii ngay bëgg a wax soo ko waxee duñu la ci baax laa tax ñëmewu ko alhamdulilahi rabbil alamin da jàpp ne ñëmewu que du waxtu waa jotagul ma jàgg te candidat képp laa senegal loolu kay amul problème kenn tëréw ko yoon tëréw ko moom xam na ne yoon sax moom xam na ne yoon. yoon tey jii bu ne damay doon candidat yoon du ko tëj. xam nga moom amul problème su ma waxee damay doon candidat si si ko déet loolu xalaatu ko de. su ma damay doon candidat maanaam euh, ñu yàq ay géej na ko mën a mën a doon candidat problème mu nit ñi politique jàkkaarloo moom la ci xalaat. waaw na ko wax ñemewu ko. su dem mayu ko de. ñëpp wax nañ ko moom des moom. kàddu gu mujj gi. kàddu gi mujj mooy di sant di leen sant di gërëm ci invitation bi macha allah di leen xamal ne vraiment ñu ngi leen di siifur waxtu wu ne te mhm. seen liggéey rafet na lool macha allah yàlla na yàlla yokk na li may tëjee daal mooy mhm. euh, gis nga Sénégal mhm. wala ñun waa Touba ñun ñi di taalibe di ay murit te gëm Serigne Touba projet de société projet de développement bi ñu Serigne Touba présenté woon politiciens yi politique yëpp mel na Ousmane Sonko moo ko ci wax waaw wax dëgg saxal dëgg di xëy ci dëgg di gont ci dëgg di liggéey jëma teg ko yoon liggéey fukki at ak juróom laa si defee gouvernement Sénégal ne ku ma ku ma nekkal fukki dërëm kaay na jaamu yàlla Ousmane ku ne xam ne ko mu ne amul benn politique saint fi Sénégal bu mas di politique bëgg doon président de Macky Sall France amul ci ñoom ñi falu duñ ko def ñu faluwut duñ ko def maintenant moom moo ko wax lii mooy lu ñu sëñ Tuubaa waxoon gannaaw moom moo ko waxaat ku bëgg nag saxal maanaam yéene nit ñi mag ñi démb te bëgg lépp wér tey ak ëllëg sooy boo jàpp ci moom asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf jërëjëf kon euh, mu nekkoon seen émission Scoop Magazine ñu amoon mbégte di ci dalal Serigne Modou Astou Mbacké jege Pastef même bu dee bokkul Pastef aussi <laughs> wala du noonu sëñ bi <laughs> ok jërëjëf kon euh, yéen ñu doon euh, teewlu ñu leen di gërëm di leen sant di gërëm aussi waa régie ñoom Thiaw ak tuuti di leen dig daje beneen yoon ci beneen Scoop Magazine jërë ngeen jëf